biike en njaay yow lal nga la doo ko ñaare laat foog nga jël pañe dem marché foog mu ndigiwaat tey ma tati du ma te loolu jëm ok guys tey na fi nga xamante ne mooy Bisco Garden ak ki nga xamante ne mooy N ah. duñ def dara lu di yaatal suñu waxtaan ak moom rek di ko bàyyi mu introduce boppam yeah asalaamaaleykum everybody chez boy N Jaay seen building ngeen xam ngeen naka la man from k you know what I mean? so happy to jàkkaarloo suma sister bu ñaawul bi, you know mean? War talk about lu bari si suñu upcoming event bi, yeah. Mhm. Uh, mm, this year is gonna be our 40th anniversary mooy comme xam nga every year dañ jee organise benn. xam nga fon boo xamante ne pour suñ xuut la you know me comme ñëpp dañ dee génn si ñu celebrate ko daf dee nice so this year is gonna be fourth year anniversary you know me so carnival la dee nekk and cultural thing xam nga fu ma waxee ñu jaay t-shirt ñu am after party so this year nag dafa gën a big you know mean so ñu yokk si lenn nag leneen nag leneen xam nga fu ma waxee mu ngi ñëw xam nga 22nd of January bi nekk nii is gonna be this Saturday

ñu ñëw ñu jaam kook ñoom si troc bi xam nga fu maa waxee before but after that suñ buñ jógee si loolu noonu last year ñu andi uh, big free show boo xamante ne dañ invite on artistes tamit ñu ñëw soo op xam nga baakoote si Moro Balde bi mu overno nice ñëpp appreciate ko you know me so this year tamit dafa nekk the same xam nga fu maa waxee so this nekk fii nii biir Besco Garden invite artistes ñu ñëwaat xam nga fu maa waxee comme ni nga ko daan defee yeah show mm. léegi acteur suñ jógee si li nga xamante ne ni mooy canivalam buy ñëw ni ak hmm. after party bi ci Bisco Garden dinañ puus tuuti yaatal suñu waxtaan ci li nga xamante ni moy carrière ya moom hmm, hmm. enjoy yow fan nga jógee ak sa carrière ya nan nga ko commencé ak tay fan nga exceller je enjoy NJS originally ma ngi juro bon you know min but ba côté la fa fala magé fala starté music you know what I'm saying fa laa suma everything you know what I mean because mangi ngi start music 2015 xam nga nekk si di grind di grind drop so many songs hang of my head am na si project boo xamante ni mu ngi si pipeline bi ñu ngi work on xam naa ne after suñ show rek si loolu la ñuy nekk incha allah dee mun a amaa comme relationship ak yeneen artistes yi. ak yan relationship nga dee am ak ñoom is it dafa based on seen music career bi wala after loolu noonu tam da ngeen dee mun a gisante nii di toog di waxtaan ak yan artistes ak yan artistes ak tamit ban artiste nga foogoon ne nii comme like am nga wëy ak moom at the end of the day everything was. mode? Yeah, man, I just yep, yep, yep, yep, yep. I think they are my families, you know what I'm saying? Hang off my I'm not some of them we got close relationship, but I'm maybe, Then they were every time. ñoom la ñoo xam ne tamit like comme only shows lañ di tase te suñ tasee tamit xam nga love more for day neck. Uh, you know me in what town? miin want siyaawante ideas so that shit some of them Some amee events they are gonna invite me so manta tam also su ma amee events ma invite leen ñu ñëw xam nga jaamala you know mean am na big collabo boo xamante ne like maa ngi ko def ak attaque you know am saying that collabo ñëpp xam nañ ko mooy um, Love Dubai Force moom it ñu ngi am very nice relationship you know mean so yeah that daal amuñu kenn nii nii nii for now comme yeah comme xam nga mooy loolu yeah Dubai Falls. Mm-hmm. love Dubai Falls boobu noonu. Mm-hmm. gis naa ne Gambien si like nañ ko te apprécié nañ ko tamit bu baax. Mm-hmm. te képp koo gis si àdduna bi rek mun naa ne comme like love mi ngi fi nga xamante ne ni mooy sa biir xol bi. ba tax na duñ def dara di ko gën a laajte. love Dubai Falls boobu noonu naka la ñëwee bi da ko wala dafa nekk loo xamante ne ni comme like nit a ko def si yow wala yow yaa ko dunda. nga bind ko. ok like comme music like soo defal music sa sa sa own society. da war di bàyyi xel lu gars yi di live understand nga because of like comme ok ñun ay artiste lañ te yàlla daf ñu dimbalee comme ñu ñu gën a yëpp ay jigéen lañ xam nga so dañ dee gis ñu bari dañ dee bàyyi xel gars yi di bàyyi xel gars yi seen living nu ñoo dundee dañ dem ba gis na ne like comme songs su gars yi di gën di fiil mooy love song te ñoom da da euh, wéy songs yu gars yi di gën fiil xam nga da wéy nu leen neexee la rek la ko gars yi di dégloo xam nga fu maa waxee te nit tamit in général doomi adama nekkut lu la neex rek mooy am xam nga fu maa waxee sometimes because of nit yow yow nga xam nga keneen kooku la you know what te yow lu la neex ba yëg ba neex la mi bi agut feneen koo xam agut keneen koo xamante ne xam nga fen you know what I'm saying so mun ngaa yëg nit kooku yëgut la xam nga fu maa waxee so moo tax dañ gën a bàyyi xel loolu ñu xam ne xam nga is very important ñu won gars jàngalaat leen delloo leen si gannaaw tuuti because of song bi soo ko dégloo daf la nekk di yow balaa ngaa dugga balaa ngay dem dibli da war a bàyyi sa xel xam nga fu ma waxee because love du mm-hmm. bul bul bugga nit ki because of something mm-hmm. because of gis nga paako bi mun na suwaak because of gis nga cafe bi mu ngi nice xam nga fu ma waxee because of yooyu yëpp soo koy bàyyee xel si nit su fa jógee rek mm-hmm. loof bi dafa wàññeeku so da gis na keneen ki dafa am disappointment te Gambia fii very rare nga tase fii cepe ngeen a si loof du la wax ne amul disappointment. xam mm-hmm. nga understand fii koo fi gis am na disappointment so it's very tamit nit ki soo dee nga dee love te yàlla tax mm-hmm. because first of all doomi aadama soo bëggee believe sa boppa ah soo bëggee gëm ne love te te yàlla tax am na danga nga war a gëm sa boppa mm-hmm. because soo nekkee ko ne da ngay dépend rek yow gëmaatuloo sa boppa te doomi aadama soo gomaatul sa bopp yang si rex hanga fuma wehe always da ngaa nekk koo xam ne yaa ngee dépend si nit yi xam nga fu maa te fi olof njaay daf ko wax fi kula abali butam fu ko ne ngay xoolee xamana ya ma fi su cepee tamit nañ baye hel si lolu mm-hmm. loof dafa am yalla dafa binda góor binda jigen, góor bu nek da nga wara a jigen jigen mm-hmm. bu nek da nga wara am bugg a bot ni ku nek da nga wara am love fo xamantene ne fa ding fa gis lola ne mm-hmm. loof nekkut loo xamante ne lu ñuy gis si bët la loof dañ koy dunda loof yëg-yëg la xam fu ma waxee moo tax ma ne leen comme loof du by force yeah because gis nañ fii ñu bari ñu bëri ñu ngi dee de bot loof bokk na si ñu leen rey gis nañ fii mariage yu bëri mujj mujjewut mujjewut lu ko waral mooy vanity love force la si loof xam nga sa parents si na waaw sa doomi oncle bii mu ngi ko xam nga mu ngi am mu ngi nekk Europe kaay ñu mel ko dafa you see da nga gis na yow fekk ci bi am na keneen ko xamante ne moom lam buga te koku tam mu ko buga gaay ñu ngi ñalante ñu ngi dunda nice but at the experience you don't understand Fofu, xam nga but dañ wara xamne fi tamit fi lu du dega du mujjé understand nga because of mo waral nga gis sey yu bari tas sey yu bari bari ñu ngi tas fi amna na cepe yu gis fii ñu bari ñu bari tay ha ah, ko fi dafa tas Yeah, because of you know why. Henya du dee sometimes du nega nekk parents am yi sax be cafe bi personally mooy gis xam nga high break wala alel bi wala vanity bi rek naaw si pako bi te at the end su te góor tamit bu la kenn na de mm-hmm. fi amna na ñoo xam ne suñ la buggee duñ la teel a de reality mm-hmm. te yow jigéen so buggee dégga de reality da nga degu force nga gëm sa nga respect sa boppa xam nga su boobaa nga mun gis ko xamante ne Kuku su ñëwee dina la mun dëgga di nga xam ku dëgga ak xam nga ko xam dafa dafa ak ku dënga di ko mun a ràññee without that da nga blind ok yeah. so which means that ne loolu du by force daf ko jëlee loo xamante ne ni mu ngi doon jàngal nit ñi. ba tax na si biir waxam wax na lu bari si li nga xamante ne ni mooy forcé love. te def mm-hmm. na si tamit exemple yu bari yoo xamante ne gis nañ ko te am na ñu dund soo ko dund saraka dundoon na ko wala sa mag. ba tax sa bi nga ko doon binda. Mm. lan nga si doon expect ak bi mu amee ba pare bi nga release song bi lan ban ak lifin nga gis ne yow am nga ko daal si woy te fii nga apprécier nga everything ni ko Gambien si buggee comme boo ko doon bindee expect na ne way within the art of it. Yeah, for sure. Because of music is all about music and entertainment. You know what I mean? Sure. Sometimes like okay, you can focus on the entertainment side track, but sometimes Tamit, okay, so nekk ne like um you good in writing Hamga, so the biggest point boo xamante ne lii dafa ee nit yi di entertain same time ding simuna educate people Bitamit. so man bu job song bitamit. dama dem ba moment boo xamante ne ñu ñoo people boo xamante ne ñoo close to me and then buñ di suñ dee dégg maa ngi freestyle song bi ñoom sax dañ dee xam ne this shit is a real shit te lii su drobee is gonna be a bang xam mm-hmm. nga fu ma waxee so ma paree pour job song bi ok um, shout out to my manager Stasi xam nga ma alaat ko ma ne ko ok dama bëgg a job di song like ok um, love du by force xam nga ma freestyle ko song bi rek mu ne ma ne this is dope mu ne ma lii fii lancé nga fit si attaque mu ne ko yee mu ne ma yee mu ne ma su si fitee attaque tamit dafa gën a nice mu ne ko yee no worries attaque is my nigga te we get a very nice relationship xam nga fu ma waxee moom tamit moo ko contacté immediately mu déglu song bi rek def na ma nu ñu dem studio yeah because of xam nga things dam ko dam ko daf ko impress instant ñu dem studio and then moom mu xam mu dugal ñu mix song bi do everything xam nga ñu drop video bi everybody appreciate ko because of like in my career Love Dubai Force dafa achieve ci lu bëree bëri bëri si suma yee career because te am na ñu bëree bëri like comme xamuñ NJS but xam nañ Love Dubai Force yeah but loolu sant yàlla la you know mean yeah man ok léegi is it that comme like yaa ngay support Gambian music because bu ma déggee sa carrière hmm. gëstu xam kan mooy NJS hmm. gis naa ne comme like yaa ngi doon support Gambian music bala ngaa dugg si biir music loolu lan moo ko andi loo xamante ne ni comme da nga a soxla wala dafa hmm. nekkoon loo xamante ne comme like da ko bëggoon a def balaa yow ngay dugg si music yeah man comme entertainment like dafa yaaga nekk si man you know because of man ku ma xam bu baax like okay euh, BK Bakote Bohol ñëpp xam nañ ne like nowadays comme ñun ñoo daan neexal centre bi you know mean so yeah comme yeah comme dañ amoon like comme ñun suñ koñ dañ amoon hunting society you know mean boo xamante ne dafa tudd Ekonet Bile Ode si décembre buñ génn nii rek celebrate nañ suñ 18 years anniversary you know mean te tamit nekkoon lu nice ma gisaat si suma booy yoo xamante ne ñoo yarandoor childhood friend bi ñëpp ñëw ñu génn si di shout out everybody koo xamante ne like tamit xam nga yow yaa ngi fa woon te di wax booy tamit xam nga ay borom baax lañ because of am na ñu bëri tukki nañ waaye bàyyiwuñ ting bi so si society bi like si hunting side bi am na ñu ko dee ron when you come to entertainment side bi ay fashion shows ay yoo xamante ne laay comme ay entertainment la yooyu comme xam nga man maa si nekkoon su da gis ne ma amoon possibility tamit am xam nga am relationship with the big artistes yu bëri understand nga ñu nekk suma waay you know mean dañ maa follow gars di bàyyi xel gars yi because ñëpp xam nañ ne Gambia tamit musique bi demoon na ba time boo xam ne su neexaan biike la woon you know mean because of like xam nga rek tey ñu bëri ñu ngi fi di yëngal tamit every day ñoom xam nañ day and night BK lañ daan nekka you know mean shout out to all BK legends you know mean T Smalls you know seen njaay bi xam nga fu ma waxee nga am ñoom Heartbreaker you know seen ñoom Tamferi ñoom M Nizoul nga fu ma ñëpp ñoom bagul you know seen ñooñu ñëpp nekka nañ ñoo xamante ne tamit nekka nañ si ñoo xamante ne man bokk nañ si ñu ma gën a motiver pour ma mun a nekk artiste you know seen because dama daan bàyyi xel yi you know miin te M Nizoul bokk na nekk na koo xam ne tamit moom mu ma gën a inspire si music yeah so mu nekk si mu nekk si noonu nekka si be léegi ba tey jii sax some of them ñoom tey su ma ootee sax su ma leen koolee ne leen ah bro ok lii mooy happen lii laa bëgg def def dañ ko dee apprécier yeah ñëpp a dee show off te ñëpp a dee ñëw yeah man ok mhm. te tamit dem na ba si biir nga got sa fan base bi li nga xamante ne am mooy Superstars Entertainment mhm, mhm. loolu naka ñëwee ak nan nga ko commencé woon développe ak nit ñi nan lañ ko gisee woon ak léegi fu mu toll yeah Superstars like it was family you know family xam nga um, buñ ko formé like amoon nañ ay events yoo xamante ne dañ ko daan teg xam nga lu si mel ni ay plateformes yoo xamante mooy ay Miss Linguère every year daf daan am boobu nationwide la daan nekka da nga daan gis ñuy joge xam nga Brikama ñuy jógee xam nga daf daan nice ñuy jógee Joswang ñuy jógee Mandiaye ñuy joge Bakote xam nga ko daan xool benn venue ñu ko fa teg xam nga fu maa waxee loolu la daan demee. and if I can remember man sama boppam you was there. yeah yow you family you part of the <laughs> superstar members you know what so xam nga fu maa waxee so. mu dem ba nga xam ne tamit after dafa biig you know miin santa la xam nga ñu dem ba aga foo xamante ne tamit you know am ñu aga si période boo xamante ne dem nañ ba gis because of Gambie ñun xam nañ fii soo daan def dara suñ demee ba nga xam ne xamuñ la pour ñu support la dafa metti yaa ma feel soo man bokkoon naa si koo xamante ne like comme and then maa daan def everything xam nga fu ma waxee man suma gars yi nga fu ma waxee ñoo daan dox 24/7 luy yóbbu ting si so like ok mu dem ba moment boo xamante ne man suma musical carrière mayaatut ma pour ma gën a dox loolu noonu understand ba pare am na some of them ñoo xamante ne tamit ñu ngi woon si fan base bi ñoom it like comme xam nga fu ma waxee maagaan nañ comme nu ma ko mun a waxee te sant yàlla am na some of them. comme yow yaa daan nekk ki nga xamante ne yaa ko daan entertain di amaa meeting ak gars yi. dem ba nga xamante ni sa music career mayu la pour nga am time boobu noonu. ak mm-hmm. ñoom mm-hmm. waaye tey jii ñoom ñi nga xamante ni ñu ngi dundal si fan bi. comme nan la ñuy suñ la gis yow sa présenté si foofu noonu. jee foofu laa ñëwee nii xam nga superstars tamit. comme dafa nekk euh, fan base boo xamante ne yàlla dafa def comme man dama believe ne yenn yi en Ndiaye su fi jógee sa superstars du fi jógee because your family already ok ñu fa nekkoon démba man dama dem ba fiil ne ñeneen ñi amatuñ time ñi sëy nañ ñii busy nañ ñii ñu ngi si yeneen waaye ba léegi ñu ngi sooloo si fan base bi anything loo xam ne fan base bi ñu ngi ko oote xëy na ñoom mun a ñëw meeting but lépp loo xamante ne mu ngi daw ñu ngi ko yëg. ñu ngi koo dégga ñu ngi leen a alaat te fanbase bi tamit am na ñoo xamante ne ñoom ñu ngi fa recently mooy ñoo xamante ne mooy new generation boo xam ne ñoo ko nekk di ron xam nga fu ma waxee ñooñu tamit every day and night ñu ngi si job bi xam nga fu ma waxee because yow seen kër sax cepe yu fa nekk yëpp ñu ngi si fanbase bi xam nga fu ma waxee soo baakoote foo xalaat même ba mu fa foo xalaat um, ci dëkk bi fii am na memba bu fa nekk du baakote kese. yee. Mhm. dafa dem ba nekk loo xamante ne léegi gëm naa ne affaire famille la daal. yëpp la képp ne nii tam bëgg nga see bokk yow feel free mën ngaa ñëw si li nga xamante ne nii Superstar Entertainment mhm. dafa doon loo xamante ne nii famille la ñun ñëpp a ko bokk nekku ne NJS kese la because mhm. xëy na moom lañ ko saatoon waaye dafa dem ba moom léegi dafa jëlaat cër bi dooloo ko si ñi nga xamante ne ko siy jaajëfee lu bari bëri mm-hmm. bëri léegi yow sa musique si yan studio nga ko dee recordé is it different kind of studio wala dafa nekk comme si da bés si benn place rek. man nag um, different studios laa dee dem yeah but maa ngi starté musique Key Fly Key Fly record you know what I'm saying one you know mean Key Fly Kololi you know what I'm yi xam nañ foofu you know mean mooy studio boo xamante ne like man fa laa starté suma musique. dem one was my first producer yee koo xamante ne like moo ma direct ne ma fii defal nii fii defal nii xam nga fu ma waxee charata dem woon te tamit bokk na si ku ma gën a motivé moom first bu ma ñëwee ma indil ko suma benn concept was like Gambian music fan xam nga fu ma waxee so ma freestyle freestyle freestyle ko song bi mu ne ma this is nice te if you believe in yourself you xam nga one day da ngaa nekk an an so bi léegi si loolu laa nekk te waxam boobu noonu du ma ko mos a fàtte so after that my job at Duge One what now studio you know I mean job na suma so many songs xam nga fu ma waxee song boo xam ne am dara la you know semester te si EP bi sax am na song boo xam ne is one of the biggest songs EP bi incha allah dégg naa sa a bi nga xamante semestre ni mooy semester. semester semester yi ñu ngi see gis seen bopp. ñi nga xamante ne duñ semester sax ñu ngi see gis seen bopp. parce que woy bi bu ma ko dégloo si biir woy bi def ne comme laay kër gi yaa ñu la xaar ak. comme comme comme dama ne ok semester woo semester semester woo semester. su biiri feesee de yow la suñ feyee lu waas bi de yow la semester woo semester. semester, uh, semester. subiri fese e, de yeula sunfeye lo wasbi de yeula sayo axe fiesta eh sofi axe fiesta yeah song is like that song is all about motivation song because of verses so go deglo like mang fa explain yo mutuki and then danko bugon like come danga na nama tukki dinga nama ñibbisi yow defi nga dëkk soo tukki ñibbisi ki fi bàyyi de wéet na mu ne nanga ko jege si yow donc ci xolam doy nga ko lege si bañ a fàtte démb bañ a yàkkamti te bul duga si dara lu la yàqal fi mu ne dollar pound bi bés euro bi bul bàyyi dara family bank ko nit fii yaay taw ci kër bi yaay caat ci kër bi yaay soppi kër bi war a safal cin bi yónnee meer bi war a paa bi tasu weer bi dee ñëwee yaa yet te njël because soo dégloo vache is all about motivation mm-hmm. xam nga fu maa waxee because ñun xam nañ the majority of youth fii dañ bugg a tukki mm-hmm. yeah because you know why xam nga comme suñ amoon luñ bugg a fii duñ xalaat tukki so it's very important yow mu am opportunity bi nga tukki soo demee xamal li la yóbbu te bul fàtte dimba bul def dara lu la yaaxal fii te bul bàyyi dara tamit because dollar pound bi bési yiro bi yëpp famille baa ngi ko niit fii lu ñëw am na fi yuus te xamal ne yow mu tukki soo nekkoon caat sax jàppal ne right now soo tukkee rek yaay taaw ci kër bi yaay caat ci kër bi yaay soppi kër bi yaa war a safal cin bi yaa te yaa war a soppi kër bi xam nga fu ma waxee te saa yu weer bi deewee ñu ool kool la xam nga su weer bi deewee ñu kool la because yaay jëndal everything so loolu nekkut ne xëy ok gars yi fi nekk munuñ ko déedéet yow yaa nekk si position bi xam nga fu ma waxee. te sax semestre bi dafa mhm. nekk loo xamante ne nii ku fi nekk. ku mhm. dem ak ki nga xamante ne demagut yëpp la woy bi laal. de si biir wax bi nga comme si koo xamante ne nii demagut. tey jii mhm. eeda nga ko ba su demee mu mun a bàyyi xelam mu ngi bàyyi familleem si ginnaaw kooku nga xamante ne nii yet mu ngi fi. eeda nga ko si li nga xamante ne nii mooy familleem dem nga sax ba si biir woy bi wax nga bu dee caat nga si Gambie bi bu la yàlla génnewee nga dem beneen réew war ngaa doon tax parce que jàppale sa famille bi. woy bi dafa doon loo xamante nii képp ku góor ak jigéen rek gis nga sa. a motivation mm-hmm. parce because second verse bi tamit. Mm-hmm. maa ngi waxaa koo xamante ne people like me. maa ngi i am not mean ne like dama naab se. Mm-hmm. xam a fu maa weexee but ok maa ngi explain second verse bi comme ok. Uh, ok tukki taxu yow nga mën a dem foo nga xaar sa wat jot nga mën a dem ñun de munuñ tukki ñu ngi xëy di gontu bañ a toog di font gis lu baax di xultu yónne woo di xaar te ngay génn di naab se da nga war di ñëf doog buy mi gàcce yee ñun demuñ de but wuruñ toog di fontu no si luñ téye dañ cee nekka dañoo raba raba xam nga fu maa waxee pour mun a régler lu bari fii because tamit bul feel like na yow demuloo Europe nga lem sa loxo fii non because lu laa yóbbu Europe tey boo demee Europe ba war a am rek dafa war a fekk nga start ko fii. maanaam semestre daf ko waxee ci anam boo xamante ne nii. Mm. ku demul sax gis na si sa bopp. parce defe naa ne da nga koy def si. both side ak both side dama ko généralise yow wéyal nga ki nga xamante nii mu fa ñaax nga ki nga xamante nii mu bi ba tax sa fulla am sa fayda gëm li nga xamante ne nii semestre yaa ngi koy def hmm. ba tax na ñëpp dañ a tukki dañ war a waaye dem nga ba wax leen ne mun ngaa nekk fi nga sa def fii sax nga mun fee nga a tekki léegi yow hmm. tey ji yaa ngi plan leneen ak lan fan nga séntu sa bopp ëllëg pour aaga fa for now sant yàlla because of like xam nañ ñu jógee te xam nañ fu ñu toolu right now xam nga fu ma wee ñaan yàlla yàlla xeeb dooli te tamit di wax gars ne comme ñu watch out because tamit su dul dara di dara game bi nekkaatuñ ci gan xam nga fu ma waxee sant yàlla because of am na so many projects yoo xamante ne drop nañ ko te mu ngee daw people bi love nañ ko te di wax gars ne tamit buñ foog ne dañoo dellu gannaaw de si kanam rek xam nga te incha allah su suñ génnee si suñ event buñ nekka nii su lu ñooy dawalil mooy ñu ngi wokkoon si suñ EP bi te tamit nañ xam ne right now bi soobee yàlla Enjayes man stop la moo nekka event open event la moo nekka te dañoo dañoo drop projects open projects su soobee yàlla xam nga di wax tamit di shout out everybody koo xamante ne like since di woon yow yaa ngi fa woon xam nga yaa ngi téye ñun xam nañ naka la fa dee demee mais bi am na ñu ma gëj a gis sax nekkut ne ok loof bi nekkaatu fa de waaye comme xam nga rek suñ sañoon laay ñu gis ma feneen ak feneen you know miin bot ok yee waaye comme tamit nañ xam ne di si sa liggéey la xam nga fu ma tey sa musique comme Johnny la yee te soo ko loofee tamit xam nga lépp looy def tamit da nga ko war di bàyyi xel te lépp looy génnee tamit da nga war a gis ne sa gars yi su génnee dinañ ko apprécier yee te am nañ yaakaar bu baane ne allah xam nga rek 2022 bi dinañ gis lot of achievement yoo xamante ne like is from NGIS loo xam ne xam nga dina ko def si music industry bi yeah soo léegi yaa ngi plan pour am wëy ak yeneen dëkk yi ñu si mel ni Sénégal mhm. ndax yaa ngi expect sa bopp bés ñëw ba nga mun a am benn musique wala benn vidéo song boo def ak ñoom yeah sant yàlla lay comme man foog naa lay comme man fu ma toll nii sax I got so many contacts loo xamante ne people boo xam na ñu ngi Sénégal te they are my brothers te this event coming sax yeah am expecting ñoo xamante ne tamit dañoo ñëw xam nga fu ma waxee dañoo ñëw xam nga just show love you know what I mean just gars yi fii laa xamante gars yi waaye since ma xamante gars yi tamit music moo tax ma xamante gars yi you te through music boobu tax tamit like comme respect bi mu fa mm-hmm. xam nga fu ma waxee te am na lu bari loo xamante so many plans yoo have ne at the future inshallah, allah dina ñëw xam nga Sénégal you know what I'm saying even other countries soobee yàlla daal yeah man mm-hmm, mm-hmm. ba tax na duñ def dara rek dugul daal di ko ñaax ah di ko yokk góorgóorlu xam nañ ne fulaam ak faylam la àndal hmm. moo tax moo ko bàyyi ci li nga xamante ne nii aw mooy si aar bii di music hmm. ba tax na Ndiaye doon na koo xamante ne nii àdduna wërngal këpp du ma wax Gambie rek comme si ni ko waxee ni hmm. Sénégal am na fa ñoo xamante ne nii yëpp mu ngi am contact ak ñoom duñ def dara lu di la ñaanal te di la gën a ñaax tamit ba tax na lépp loo bëgg rek yàlla suñ borom may incha allah léegi ñu bàyyi la nga daal di gërëm ba pare tamit wax say mujjantal kàddu rek Yeah, Alhamdulillah, you know what I'm saying? Just content, right? Because of like, um, especially like soon upcoming event buñ dee am nii xam nga and then dañ ko daan def every year ma gis phone mu dee ne xam nga fu ma waxee daan gis xam nga uh, first year bi ñu ko def ñu ñu maaga nañ ñeneen ñi sëy nañ so second year bi ñu gis ñu ñu seen doom yi di ñëw third year bi ñu ñu seen doom yi di ñëw ba this year sax comme like man su ma génnee xale yi dañ mooy oncle mu Njaay tisat si naka la tisat si naka la comme dama dee feel ne this is real shit because of like comme loo xam ne la comme def nañ ko def nañ ko ba ba ñu daan dem sax seen doomi dem ba léegi fulal ko kon lii dafa nice xam nga fu ma te tamit di wish everybody happy anniversary again. It's gonna be like this um, um, Saturday coming. Hang off my way So like come, um, do everybody, you know, you show love. nañ génna ñu ñëw ñu sooloof daytime bi ñu yëngal baakoote xam nga fu xam nga you know trop bi dafa nekk gese yi comme nu mu fa daan demee sound bi du yomba dé bi ñu yëngal ñu yëngal di invite comme biikee la dëgg la ñun ñu waa baakoote lañ every year dañ celebrate baakoote xam nga fu ma waxee Njaayis Bohol la jógee Njaayis waa Bohol la yaa ma fi di waa comme ok waa Bohol waa Bantaba waa Sitaba xam nga fu ma waa Johnson ba waa Bantaba xam nga fu ma waxee di comme estate layout boy comme you know what I'm saying baakote yëpp di baakote yëpp because soo ne biikee rek da nga ko généralise ne baakote yëpp la mm-hmm. ne ñëpp génn si ñu ñëw ñu si daytime bi ñu am phone xam nga fu ma waxee affaire yi comme loof la tamit ba pare di wax gars yi bu kenn ragal you know what I'm saying 100 percent sécurité bi mu ngi fa because every year dañ ko dee def te force suñ ko dee def plan suñ dee njëkk a teg mooy sécurité bi because bëgguñ sista yi di ñëw kii di wax ne suma phone bi nii suma nii déedéet ñun youths yëpp lañ dee waxal woon leen ne lii pour ñun la te soo su ñëwee tamit xamal na sa sista yi ñoo fi nekka te ñu si biti tamit suñ ñëwee nañ ñëw pour pour bi ak phone bi ñu celebrate ko xam nga bëgguñ violence bëgguñ dara night party bi ñu ñëw fii nii xam nga fu ma waxee gis nañ fly bi génn na lot of artists yi ñu ngi fa di wax everybody tamit ñu ñëw night bi fii ñu show love one guy tamit ne xam nga lan lañ am ba pare am nañ ay songs yu ees yoo xam ne tamit dinañ ko playal gars on that night xam nga fu ma waxee di seen shout out everybody di shout out suma manager Stasi di shout out xam nga fu ma waxee El Mara ma road manager di shout out bi whole superstar fan base xam nga fu ma waxee di wax comme Ndiaye mu ngi everywhere soo demee Instagram Ndiaye da nga maa cappa Facebook Ndiaye official YouTube Ndiaye music Twitter Ndiaye you know see me everywhere. loo bëggal li nga ko mën rek follow ma details yaa ngi ñëw moo videos te di wax ne xam nga rek recently ñu ngi drop brand new video call si digga bi xam nga fu ma waxee so na ko gars yi dem watch si YouTube bi you know what I'm saying te di wax gars yi nañ jox leen rendez-vous rendez-vous you know what I'm saying this Saturday coming to you know what I'm saying xam nga fu ma waxee. te dafa mel ni t-shirt si moo nekk ne you know what I'm saying BK bi yaa all know this year is gonna be explosion. you know miin T-shirt si soo ko bëggee rek contact you know miin like come. you know um, 298 2531 298 2531 soo contactee number boobu rek di nga mun a am T-shirt ba pare tamit di nga mun a am pre-sale ticket for the night for the night party because T-shirts are 250 you know what I'm saying advance ticket for the night party are 150 at the gate. xam nga fu ma waxee hundred and fifty uh, two hundred dalasis xam nga VIP three hundred di ñëpp ñoo xamante ne jàpp nañ si nañ si sista yoo xamante ne like jàpp nañ si ku si mel ni xam nga maam jaara shout out to you jaara di waa everybody tamit xam nga shout out to képp koo xam jàpp nga si di wax gars yi ne nañ ñëw nañ ñëw nañ ñëw di Saturday ñu show love and then ñu celebrate BK anyway, Si digga man nang si digga Maa yëngal dëkk def li jamono ni. Maa yëngal dëkk wax li ren ni yi bak. Si digga man nang si digga